waaw ñi ngi euh, sant yàlla bi ñu ñëwee fii tey ci dëkk bu tedd bi ngir euh, wëyal liggéey bi liggéey bi nag mooy li nga xam ni moom nañu euh, yéene woon def pour màggal bi ñu ñëw saytu liggéey bi seet ndax liggéey bi mi ngi mi ngi mi ngi avancé bi ñu ñëwee nag gis nañu ne que visité nañu chantier yu bëri euh, forage bi nga xam ni moo nekk euh, Daaru Karim moom nga xam ni forage bu mag la parce que mi ngi injecté ci réseau bi 4000 mètres cubes donc mooy 200 euh, mètres cubes par heure donc 4000 mètres cubes jour boobu gis nañ ne mettre nañ ko en service te jot nañu sax ne ci dëkk yi nga xam ni ñoo nekk ci wetu forage bi ne ñoom ñi ngi gën a am tawféex ci wàllu ndox bi donc loolu tamit muy loo xam ni dañ koy rafetlu beneen forage bi nga xam ni moom dañ ko dugaloon ci plan d'action bi à la dernière minute mooy forage bi ñu décidé woon def pour euh, euh, Daaru Karim Euh, ndax euh, dañu seetoon ne foofu dafa amoon ay jafe-jafe yu tar bi ñu demee ci site bi fekk nañu entreprise bi nga xam ni moom moo yore marché bi mi ngi liggéey euh, vingt 24 heures sur 24 dañu am ay équipe yoo xam ni dañ ko fa teg ñoom wax nañu ne que si ñaari semaine rek wala ñetti semaine lu ëpp forage boobu dina pare. Euh, wax nañu entreprise bi nga xam tam moo war a def réseau bi ndax ndox bi su génnee ci forage bi il faut que mu am lu ko yóbbu ba ci kër yi donc entreprise boobu tamit ñëw nañu fekk sax moom mu mu def tracé yi ba gas ba dugal tuyau yi moom nee na dafa bëgg sax njëkk a pare forage bi comme ça su forage bi paree rek ñu def raccordement yi foofu tamit am nañu yaakaar ne euh, dinañu amaat 4000 mètres cubes ndax. Euh, Euh, suñu objectif moo doon dix mille mètres cubes donc quatre mille mètres cubes ak quatre mille mètres cubes Touba Ndiarème mu nekk huit mille li ci des mooy li nga xam ni mooy euh, euh, mesures yi nga xam moom la ñu jëloon pour améliorer réseau bi ak distribution bi d'abord forage bi nga xam ni moo nekk. Ndisso boobu cinquante mètres cubes la boobu euh, relancé nañu forage bi mi ngi daw euh, suppresseur yi nga xam ni moom moo war a jël ndox bi di ko def ci citernes yi pour citernes yi mën ko jël yóbbu ko ci fii nit yi nekk muy disposition d'appoint bi boobu tamit gis nañu ne euh, suppresseur bi yóbbu nañ ko Ndakaaru di wekki nañ ko démb pour yóbbu ko Ndakaaru pour defar ko dinañ ko indi ci biir semaine bi ensuite jël nañu yeneen yeneen yeneen euh, mesures yoo xam ni mooy remplacer vannes yi vannes yi mooy fi nga xam ne ndox bi foofu lay jaar euh, yooyu yëpp dañ koy remplacer ndax vannes yi dañu gisoon ne amoon na ci lu am euh, yu bëri yoo xam ni dafa yàqu woon yooyu yëpp tamit changé nañ ko réhabilité nañu forage yi ci quatorze forage yi ñu décidé woon ne dañ koy réhabilité daanaka huit yi presque réhabilité nañ ko ba pare donc liggéey bi ñu ngi rafetlu dëgg dëgg euh, niñ koy wéyalee euh, ci biir euh, Touba di ci gërëm ñi fi nekk ñëpp di ci liggéey muy Bamba bi nga xam moo fi nekkal Ofor mu am tamit mu ñu nekk régional yi nekk Louga ak yi nekk Kaolack yi ñëw en renfort ñooñu ñëpp ñu ngi fii di ko jàppale ci liggéey bi ñu am yaakaar ne rek année bii moom en tout cas euh, dinañu am euh, euh, tawféex par rapport ak daaw. jaw yaakaar nañ ko te waxtaan nañ ci ak euh, kilifa yi fi nekk mooy porte parole bi Serigne Bass Abdou Khad expliqué nañ ko liggéey bi ñu def yëpp mu rafetlu ko donc euh, ñëw tey ci Serigne Ousmane Mbacke nga xam ne moom aussi liggéey bu am solo la ci am moom tamit rafetlu na liggéey bi waaye seetlu nañu rek ne liggéey bi tamit dañu war a gën a améliorer coordination bi ndax du OFOR rek moom moo yore wàllu ndox fii ci biir tubaab am na ñeneen ñoo xam ni ñu ngi yëngu ci wàllu ndox bi li ñu war a def mooy si léegi euh, chaque année dañu war a ñun suñu plan d'action yëpp ñu boole ko xool euh, naka nañ koy wéyalee ñun ñëpp te loolu d'accord nañ ci te defe naa foofu nañuy jëm incha allah. gouvernement du Sénégal euh, dégagé na lu takku pour ñu mën a def liggéey bi benn ñaareel bi mooy li ci am solo tamit mooy diagnostic bi ñu defoon. moom nañ doon apporter ay réponses mooy diagnostic bi mooy jafe-jafe yu ñu gisoon moom la ñuy jéem a saafara looloo ci am solo te loolu defe naa ne ci nañu nekk ñi ngi gërëm en tout cas ñi ñu fi fekk autorité administrative yëpp mooy gouverneur bi ak euh, le sous-préfet Mar moom nga xam ni vraiment question bi léegi moom defe naa daanaka moom préfet wu ndox la ndax question bi daf ko intéressé bu baax a baax